salaamaaleykum mbokk internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte di ànd ak yéen saa su nekk comme ni ko gisee nag saa su actualité amee dañuy wàcc si terrain bi daal di waxtaan ak askan wi ku ne xam na nag ñu ngi ci waajtaay tabaski euh, mën naa ne benn ñaari fan rek euh, moo ci daal di des wante ni ki démb ñu gis rek euh, gouvernement bi nag daal di annoncé dinañ daal di wàññi li nga xamante ne si nag moo di njëgu ceeb bi diwlin ak suukar li nga xamante ne si nag moo di mburu mi tax nag tey ñu daal di si terrain bi ñëw fii nag ci marché bi nekk ci case bi parce que ne waxtaan yi nga xamante ne nag moo di yi ak ñi nga xam ne nag ñoo di commerçant yi daal nañ fi dajeeg sama benn maman maman nuyu maa ngi lay fay bu baax ne na tuuti ça va maa ngi sant yàlla bu baax. nan nga gisee euh, annonce bi nga xamante ne si gouvernement danañ ko annoncé dinañ wàññi. gàcce ak sonn ak jaaxle gàcce kepp nag waaw ndax li fi ne woon moo tane lii fi nekk léegi ñu wax ko ta dee mënuñoo toog di xaar ay ñaar dërëm ki juróomi dërëm waar yi bari na maa waxoon maa def ñu toog di ko xaar te deful dara ñun ñu ngi bëgg a dee sonn nañu. waaw euh, dërëm lañ ci wàññi de dërëm. lu ñu doyee lu ñu wàññi dërëm nan lañ koy doyee non c'est bizarre dafa dañoo sonn ah jaaykat yi doon jaay mënatuñoo jaay ñuy dàq seen marchandise yi xale yi ñaata lañ dàq fi mu ne nii demal Kër Mbay Faal nit ñi dañoo sonn waroon nañu ko fee bàyyil ñu continuer waaye lii fi ne daal dërëm ak juróomi dërëm la man lay bëggatuma doyal naa sëkk. Eh, santal yàlla eh, eh, ñu ngi jaay ba jaral ñu ngi jaay surtout ñu ngi jaay wàññil ku la wàññil ñetti dërëm sax kooku dalaa bëgg a jàppale li nga wàññi baax na ku man dund ku mun nga génn Sénégal wasalaam. yaay ñun ñun ñun yaay xale ñu ngi dang-dang ci naaj bi président yow Diomaye ak Sonko dimbale leen jigéen ñi ndund bi seer na njàng mi na jigéen yaa ngi dangi-dangi amul jigéen bu tëdd instant jamono ji fu ñu toll nii jigéen yaa ngi dangi-dangi di yenu galaseer di yenu ndox ba jant soo bu ñu demee tëdd suñu yaram day métti duñu xam fu ñu si lan la ñu nekk dimbale ñu ci ngir yàlla ak yonent bi ñun yàlla yalla la ñu yaakaar de yàlla rek yéen la ñu yaakaar ñu ngi leen di xaar nag ndànk-ndànk yàlla na lay yàlla dimbale daal li ngeen mën a liggéey ngeen liggéey ko ci réew mi ba mu ba mu leer nañ loolu rek la la ñuy ñaan ci senegal jàmm am Sénégal réew mi neex. dinañu wàññi ceeb beeg moom kay bu ñu ko wàññee biir yi dinañ fees. ah moom kay bu ñu wàññee même fukki dërëm sa baax na. l'essentiel ceeb bi na nit ceeb bi ceeb bi eh, yomb suukar bi yomb lépp neex jamono Abdou Diouf ni mu nekkee woon daal na nekkaat noonu. location bi location bi yomb location bi cher na suñu jëkkër yaa ngi dee ci location loo liggéey rek nga def ko ci kër loo liggéey rek nga def ko ci kër ñun daal amuñu lu ñuy lu ñuy nooyee boo tëddee sa fajar yaa ngi yeewu pour nga dem dangi dangi pour nga ñëw fay borom kër ji te boo duggee kër doo fa fekk dara lu dul néeg bu kese kon nag dimbal lañu ci ngir yàlla ak yonent bi courant bi tamit seer na ndox bi seer na kër yi bëri ñu ngi ni amuñu ndox amuñu courant jigéen yi ñooy dangi dangi di indi di di indi di jox borom kër waaw loolu loolu moom Diomaye ak Sonko dimbal lañu. li ne après tabaski lañ koy wàññi est-ce que buñ ko defoon avant tabaski bi parce que ñu bëri loolu mooy gën a neex sax ba avant tabaski di ñëw lépp dafa waroon dafa waroon a def impact. waaye fu mu ne tabaski moom gars yi ñu ngi naa ne du ñu wàññi loolu war ñu gis nga Sénégal. am nga soble. xar bi sax amaguma ko maa ngi maa ngi ni jàkkaarloo ak caméra Diomaye ak Sonko aw ma eh, eh, xar aw ma soble aw ma dara yàlla de laa déglu bu indee ma xam ne am naa bu indiwlee ma xam ne yàllaa ma ko joxut waaw ma julli ak jàmm ak salaam waaye dara yaakaaruma ko sama kër waaw yàlla rek moo moo moo yor yaakaar bi waaw incha allah yàlla nañ ko fekkee jàmm te tal ko am wér ñu fekkee déwéne déwén déwén déy bëree bëree bëree bëri xaalis moom du dara liggéey rek ñàkk njëriñu waaw ñu ngi koy xaar waaw incha allah maa ngi fi sant sant yàlla. décision bi nga xam ne gouvernement bi jël nañ ko fas yéene wàññi njagum dund gi yow naka nga ko jàngatee. décision bi ah ñu ngi sant yàlla rek di julli ci Mohamed di sant suñu ñaari waajur di ñaanal jomaay di ñaanal àddina bépp. yàlla wàcce fi jàmm ndax jàmm jum ñu xeexal ba ñu am ko lum ñu dig ku la jox añ bu la diggee reer nga war koo gëm tant que jàmm moo ñu ko fi indil ndax Sénégal demoon na ba amatuñu jàmm mu indil ñu jàmm dig ñu jox ñu añ dig ñu reer war nañ koo gëm nañ ko ñaana rek te jàppale ko tant que wàññi na li mu wàññi xeebuñu ko bu yokkoo ñu jël jàppale ñu jàppale baykat yi ci réew mi parce que importé bi tamit metti na nañu jàppale daal loolu daal lañ bëgg. wàññi bi après tabaski lañ koy wàññi dañoo daal di annoncé rek est-ce que duñ ko defoon avant tabaski bi euh, ah ci lay gënee de waaye loo gis lu dafa am yoon na ko togg ba mu ñor rek saa bu ko defee daal na ko def si noo xam ne rek mooy jëmale réew mi kanam. suukar instant bi suukar est-ce que du 700. loolu de laa yaakaar. waaw nee nañ fukki dërëm lañ si wàññi. wàññi nañ ci fukki dërëm. waa baax na ba tey bu dee fukki dërëm ma ko arrangé na naxante waat rek bu ma nee dolli waat mu dolli ndax sénégalais yi moom lu dund bi lu mu gën a yomb rek moo leen gën a waaye tamit boo toppee bëgg-bëgg askan yi tamit nga xool lu la lu moo gën. mburu mi réew mi kanam daal. mburu tamit ñetti waaw. mbu wàññi bi moom na sax dàq rek te dimbali baykat yi ndax lépp bu ñoree ci réew mi rek lépp yomb ndax dara du génn dërëm bu génnul gaal gi lay doon kon nag jamaay na jàppale baykat yi. ngay wax jaaykat yi nga xam ne ñoom ñooy jaay euh, ci wàññi yi ah sart yi ñu leen teg ñu appliqué ko rek ñu xam ne yoon moom moo man lépp yoon moo ëpp doole lépp ku chargé. boo mënagul a wàññi su jeexee nga jëndaat wàññi loolu daal laa leen di wax waaw. sant bu baax ñu ngi jàmm alhamdulilah. waaw comme prix yi fi toll na parce que arrêté bi si bi jël excès gu si ñun ba léegi xëy na na amagut contrôle walla euh, appliqué guñ ko si marché bi quoi ñëwagut. Mhm. litre bi gars yi ñu ngi ko doon jaay 1200 waaw. waaw ah, baaxul mi changement bi yoon la loolu mën naa wàññeeku. bi nga xam ne jël nañ ko ni dañuy wàññi ceeb bi euh, diwlin bi ak suukar bi yéen nga nekk ay commerçant peut-être que xam naa jëndoon ngeen euh, ay euh, marchandises yu bëri pour waajtaay tabaski beeg yooyu tey ñu ne après tabaski la ñuy wàññi ndax bu ñu nee tey da ngeen di appliquer. non benn problème parce que ñun moom lu jëmale Sénégal kanam loolu la ñu bëgg ak loo xam ne askan wi yëg suñu bopp parce que ñun ñi jënd ceeb jënd diw ko consommateur jëndee comme ñëpp mais essentiel kan parce que suivi mooy lan état bi xam na fu ceeb bi di jàpp dugg Sénégal xam na fi diw bi di jàpp dugg Sénégal su buggee mu yomb mu am suivi dina am suivi mais su fekkee bëgg na mu yomb te defu si suivi tam def suivi parce que yooyu toog si télé bi ne de wàññi naa ceeb wàññi naa diw te amul suivi amul importance mais nga dem ba si détaillant bi ba ki nekk cee dugg wala kii ko di jaaye prix bu normal mais tey Dakar mun na am prix bu abordable mais boo génnee si raison yi prix bu la neex la ñuy jaayee. li ñuy wax ni moom la njëg gi di jaar parce que daan nañuy xamle ni euh, suukar bi doon jaar 650 léegi 600 lañ koy loolu mun na loolu mën naa ne même suukar avant muy jaay balaa ministre bi di wax 650 am na ñuy jaay si marché bi 600. kon loolu wàññi boobu actuellement ñu ngi jaay 650 600 am ñu jaay 700 parce que prix Sénégal du homologué benn place chaque suukar da ngay gis koo xam ne moom mën naa amee une tonne suukar di ko détaillé kooku li muy détaillé du bokk ak ki jënd benn sac te loolu. état da ko war a xam ki am possibilité de jënd vingt sac kooku buy détail par kilo kooku dina am possibilité jaayee six cent si place mais ki nga xam ne kooku moo koy jaay par benn sac kooku bu demee bu ko état ne jaayee six cent du jaayee six cent parce que mënu ko parce que dafa jënd benn sac dawlu ma trois kilomètres fay ko transport kon bis il faut commerce moom bu si kenn nax ku ne la nga jëndee ngay jaayee ku jëndee yomb day jaay lu yomb a dimbali ñëpp parce que loolu doole instant bi amul ay clients yu leen commencé sonal naan wàññi nañu wàññi nañu. non parce que ñun moom bu dee man moom sama côté client yi duñu ma sonal parce que man normal laay jaay. waaw man moom du ma jaay lu cher. parce que man moom suukar naka jekk maa ngi doon jaay prix bu normal boo xam ne nii même bu état nee wàññi na li ma doon jaay démb tey moom laay jaay te wàññi bi egg seegut te kenn sonal ma si. instant yi 650 laay jaay te état 600 la wax. te ba tey 700 ñu ngi jaay man ceeb du ma ko détaillé. non dafa saag laay jaay. ça va sëñ bi na nga def. waaw ça va sant yàlla bu wér. man maa ngi tudd Bamba. Bamba waaw. di si kontaan bu baax a baax rek. Mhm. waaw ak luñ doon xaar la quoi. Mhm. waaw ñu ngi ci dolli sant yàlla bu wér ndax loolu leen doon xaar gis nañ loolu daal waaw loolu la. mburu mi ñu wàññi euh, euh, waaw euh, mën na tuuti nag si dégg. si si dégg mais après lu lu bari la de ndax boo xoolee quinze francs ñaata yoon leen ko wàññi quoi quinze francs tey mu ngi maanaam tey 15 francs yu ñu wàññi si mburu tey boo xoolee ay milliards la quoi 50 francs bu ñu wàññi si suukar boo xoolee moom itam ay milliards la maam nañ def ndànk rek te bañ a yàkkamte xam ne affaire day baax quoi ak lu mën a xew wàññ boo mën mënee gis si ndànk lay tàmbalee quoi suñu jékki-jékki rek wàññi lu am doole suba dinañ ko bëgg a yokkaat quoi. mais nañ wàññi par ndànk-ndànk ba keroog ñuy gis solution bu normal waaw. <laughs> non man moom sama gis-gis mooy fuñ ko wàññee baax na ko waaw ndax boo xoolee wàññi bi. avant tabaski bi sax man moo moom laa gën a gis ne moo gën a normal ndax tey borom kër yi war a wàññeeku yëpp ah war a jënd yeneen bagage yi sama waa ji ah leen wàññilee moom même bu dee dërëm la sax baax na quoi ndax affaire yi du yomb daal noonu la demee après tabaski ah, mais ñu wàññiwoon ko nii sax gën na même tey sax baax na waaw mais nag ku ñuy may moom du du du daal même après tabaski baax na quoi waaw mais pour l'instant moom léegi-léegi moo gën gënoon neex daal waaw ni ñoo di commercant yi nga xam ne souvent du ñu wàññee ñoom du ñu appliqué wala prix bi ñu wax ñëpp duñ ko mën a jaay. waaw commerçant yi ah di leen wax ne ñoom tam nan kii rek yàlla baax na daal <laughs> waaw nan jàpp ne état la rek waaw lu ñu tey bu subaa ñoom maam lu ñu tey presque eh, état tey su wàññee li ma foog mooy su wàññee tey doonu day wàññi rek si xaalisu ñoom seen xa moom xaalisu boppam lay wàññi rek waaw loolu laa gis de <laughs> waaw. <laughs> ñëw far yaay waay ajo maam maa ngi fi rek ça va sant yàlla bu baax man Mansour Cissé commerçant nga waaw commerçant la waaw décision bi nga xam ne gouvernement bi jël nañ ko ngir fas ne wàññi dund gi d'abord di ko rafetlu rek di di wax ñu gën a góorgóorlu rek parce que dund moom ku na xam ne Sénégal yi li ci ëpp ci Sénégal yi li leen concerné ci réew mi yëpp question yi leen concerné benn question la mooy dund gi donc suñu ko wàññee yaakaar naa loolu population bi dinañ ci kontaan donte nag wàññi bi jàpp ñu bëri jàpp nañ ne xam naa néew mais néewut sinon surtout que nga gis le coût au niveau national et que ñu naan ça tourne autour de 53 milliards donc loolu nekkul lu ndaw maintenant mën nañoo gis les quelques francs yi ñu wàññi ci benn article mais au tout au total da jàpp na donc wàññi nañ lu am solo ci ci ci njëg yi quoi voilà surtout que ñuy jënd en ñuy jënd également quantité bu am solo ça veut que ñi jënd en gros ñoom ñooy gën a mën a bénéficier si wàññi. Euh, non accord uma ci parce que kii kii kii jënd en gros euh, mën na cee gën a bénéficier wu donc bu ñu xoolee Sénégal ñi ëpp ci consommateurs yi donc jënd ñu en boo ne en rek c' est le commerçant mais le consommateur moom du jënd souvent en gros day ñëw jënd lu mu soxla tey lépp ci Sénégal yi dañuy vie au jour le jour maanaam tey dépense tey ngay assuré. su paree bu suba nga lijjanti ko donc ñoom loo leen wàññi rek xeebuñu ko parce que selon les les moyens yu ñu am donc noonu la ñuy dundee moo tax wàññi bi xeebuñu ko danaa ñaax ñaan rek plus le temps di avancé wu ñuy gën a mën a wàññi parce que lu ma wax léegi rek Sénégal yi moom dund daf leen a yitteel trop te Sénégal dund yi ak lu ñu mën di wax mooy cher na te bokk na ci également sanctions yi gën a sévères yi ñuy def nguur yi passé kon bu ñu amee équipe bu bees ñuy doxal ñu laal dund gi donc dañ leen ci sant bu baax di leen ñaan rek luñ ci mënaan rek nañ ko ci def incha allah. ñu gis ne waajtaayu événement yi commerçant yi dañuy dañuy jënd marchandise yu bëri stock pour préparer événement yi tey ñu ne dañuy wàññi après après tabaski bi tey bu ñu wàññee est ce que yéen ñi nga xam ne jundoon ngeen ba pare ak prix cher ndax yéen du leen daaneel wala pare ngeen pour après. non commerçant bi moom euh, période bu nekk ak li am ci marché bi rek euh, donte tey wàññi nañ mais je pense produit yi nga xam ñoom yi nga xam ne wàññi nañ leen con wàññi bi concerné na leen te ñu nekk déjà ci dépôt yeeg ci magasin yi yooyu mën nañ ko évacuer yàpp je pense d'ici tabaski bi donc peut-être affaire yi processus la état jël na donc petit à petit donc dina dina effectif dans le marché et dans les places et petit également euh, consommateur bi dina ko yëg ci marché bi ndax bu ñu fàtte ne commerce chaîne la li fi nekk am na d'autres produits en bateau yi ñëw donc ñoom déjà bu ñu intégrer le marché rek donc wàññi bi dafay effectif incha allah. kon li nga ko li nga ko fas yéene waaw non xam nga mënu non xam nga commerce moom donc euh, da am ay ay gain day am ay perte day am loolu activité bi ñoo ànd comme ça euh, maintenant ñi nga xam ne amoon nañ le produit déjà sur place euh, dinañ jaay seen produit te duñu perte parce que commerce moom da perte ci ci ci ci échéance bi gagné ci beneen échéance da jënd produit bu cher. en un moment arrivé mu yomb tu es obligé nga nga rattaché wu ak la loi du marché nga jaay et donc je pense lii aussi te commerçant yi dinañ ci jàppale état d' autant plus yi ñoo fal góor gi te ñoo sàkk woon dund gi yomb te bu ñuy fàtte aussi ne commerçant yi aussi ay ay consommateurs lañ commerçants yi ils sont d' abord des consommateurs avant d' être des commerçants donc ñoom ci pàcc consommation bi lañ bokk donc wàññi gi également jàpp naa dinañu neex ñun ñëpp kon bu dund ko yombee je pense donc intérêt général la intérêt Sénégal yëpp la et je pense commerçant yi vraiment euh, kontaan nañ ci pour ñu waaj pour ku dund gi nuñ ko wàññee nii. maman na nga def. maa ngi fi maa ngi sant yàlla jàmm rek Marème Ndiaye. ah ñu ne gi ceeb bi suukar beeg euh, dulum bi ak mburu bi yow naka nga gisee loolu. waaw ni ma ko gisee mooy ñun bëgg moom la ñu bëgg sax ndax jaboot lañu dëkk bi neexul kenn yorul dara dara dara. nañ koy waxee te prix yi dafa seer ba dafa ëpp te jaboot yi test si nañ ba sonn amuñu leen loo xamante ni mën nañ ci satisfaire seeni doom bu ñu sañoon nag wàññi bi nu mu gën a gaawee moo ñu gënal yéexantal bi moom gënul ñun daal nu mu gën a gaawee rek moo ñu gënal te mu wàññeeku bu baax nag lépp lu nit di dundee daal di dimbali jabootam nañ ko wàññi rek nu mu gën a yombe mburu bi ñetti dërëm lañ ci waañ ndax loolu du sonal la ñetti dërëm moom amul jariñ daf ñuy sonal weccit bi amuñu ko bu ñu mënee ñetti dërëm tamit ñoom dañ koy mujjee jaay rek waaw buñ ci wàññi ñetti dërëm li mu doon jar lay jar ndax weccit amul ma ne la loolu moom xeeb naa ko sama dëgg rek laa wax xeeb naa li ñuy wàññi loolu nit boo koy wàññil danga koy wàññil loo xamante ni moo dal xelam dina xam ni lii doole yi ki koy wàññil fii la mën a yem waaye ay ñeenti dërëm ak ñetti dërëm 40 francs yooyu man wax dëgg yàlla. am na ay 100 francs waaw ay 100 francs ceeb bi waroon nañ ci mën a wàññi ay fanweer duulin bi ñu wàññi ko ba mu gën a yomb euh, lépp li ngay xam ni mooy dund bi nga xam ne mënut a ñàkk dañ ko war a wàññi li nga xam ni boo ko lekkulee du la wàññi dara kooku bay boo ñu yéegal ko waaw. Ah, soble manqué ah, soble de manqué wul waaye pombiteer amul. amul. instant bi soble ci kilo ñaar. ah actuellement man man saako rek laay jënd dem waaw waaw saako rek jënd dem saako 6500 moo am ah, ay ay 13000 moo am 16500 ak kii 13000 moo am 11500 yooyu yëpp am na prix yi toogul benn place. pombiteer nag mu ngi ci ñaar. pombiteer bi seeragum na hmm, seeragum na wax dëgg yàlla actuellement jëndaguma ko sax